asalaamaaleykum suñu mbokku internet yi ñu ngi leen nuyu di leen gërëm di leen sant si safoo ak faale bi ngeen faale Sénégal TV di leen wax tey ñu ngi fii si CICES di leen présenté 18e anniversaire yu waa Bidiw bu bees ku ne xam na Bidiw bu bees seen sista bee bare la mystérieuse di leen ko présenté kon nañ dem ci biir ma war leen li fa xew. mu mel ni ne bidéo bu bees lu yaatu la sëñ bi na ngeen def. ça va soxna ñu ngi fi ñu ngi si impression si 18e anniversaire bu bu bees nu ngeen waaw bii dañuy wax ni xanaa bon répétition la rek parce que bon Vidéo famille, yi moom ku ko xam en général crew la bu yaatu comme ni nga la mais avant tout c'est une histoire de famille une histoire de religion pour maintenir mon moo ñu unir euh, de ce fait euh, anniversaire bi dafa mel comme ñu organisons, on daaw organisé ko daawati bon tey beau gisee dañoo def innovation parce que démb ñu ngi à l'hôtel des Almadies ñu def euh, soirée pour xamanteni le dîner de gala la bu flante tey ñu ngi fi tay avec des invités américains avec la famille les amis pour pérenniser le truc qu'on a commencé il y a de cela trois ans une nouvelle face euh, de BDB c'est-à-dire l'originalité Who can start tonight? Say, uh, who can start to glorify Lord of God tonight? Say, who are? If I can start tonight, say, who can start to glorify Lord of God tonight? en fait euh, famille Bidew bu bess lutax ñu créé ko parce que ñun ñëpp ay nit ñu bokk bëgg-bëgg lañ moy Bidew bu bess lañ bokk ñun ñëpp bëgg té ñun duñu wax sax fan club dañuy wax Mifa Bidew bu bess parce que ñun ak Bidew bu bess benen histoire la liñuy liñuy li ñuy dund dépassé na ay affaireu fan club genre affaire yoy non parce que on est tout temps ensemble on communi ay ay frères yu ñu respecter lañ yo xamné xam nañ mbëggeel bi ñu am ci ñom ñu ñu koy delloo ba mu mët sëkk yaa ngi tey moom dama kontaan kontaan kontaan ba nga xam ne wax sax mënuma ko. billaay te dama kontaan na kontaan naa kontaan naa kontaan maa ngi leen di ñaanal lépp lu ñu bëgg rek yàlla defal leen ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa Okay. Okay. Poor Exato. É tudo. Aham. Video começa a molhar, feita, aí sai. Né? Surpresa que vai queimar, feita, aí sai. Da feita, que vai

Donc, parce que c'était trois jours d'anniversaire, commencé par le don de sang le 28 matin, petit dîner de gala à l'hôtel des Almadines, petit taille. fii si s vous avez vu chaleur bu fi nekkoon ngeen nekk ngeen fi on a communié avec la famille on a communié avec les fans avec ñëpp Sénégal bi ñëw Il y avait du show y avait du spectacle et donc ñu ngi sant à la loolu di ñaan yàlla nag jàmm au Sénégal ndax jàmm ci la lépp xëy donc bu jàmm on ñëpp du on a am. di ñaan franchement ni ñu ko ni ñu ko teewee weer ren ko ñaan déwén ñëpp teewee ko moom si jàmm fi ñuy gën di faites ndoo di gën di bokkandoo di partager ndoo suñuy émotion ak c'est très important juste di wax mention spéciale à famille ndax tamit bu réussir nit ñi tax kon maanaam amuñu fay donc di ñaanal jërëjëf sama gars merci beaucoup ils sont venus spécialement de Djoubel pour wax vidéo bu merci. merci gars yi. yow mi sax ci sama xol lay wayal aw sa yoonu tool aw sa yoonu tool sama bébé lay wayal Dumba mbëggeelam na borom 也没我，马丢了我该飞向你说，他没为我，也没我，马丢了我该飞，什么都给说，他没为。 xool préparation bi donc xam nga dafay soo fàttaliku rek dafay am émotion yu bëri parce que déjà c'était un défi à relever def dina de la première fois en suivi de concert si jamono ji ñu toll nga xamante ni gars yi bu ñu koy set ay màggal la ñu taal ak parce que loolu moo fi nekk loolu nag gars yi gars yi bàyyi seen si anniversaire bi pare dem màggal donc benn honneur bees Euh, ñoo ngi sant yàlla d'abord euh, di wax alhamdulilah parce que nga woote mbooloo bu mel nii wuy si la dafa jafe te Sénégal seetlu nañ ni vidéo bu bees rek mooy osé def lu toll ni waaw man kontaan naa lool ci d'ailleurs ci ñi ñëw ñëpp maa ngi leen di sargal di leen wax gàcce ngaalaama parce que ñun suñu xol sedd na xam naa ni vidéo bu bees seen xol sedd na ñuy seetaan lii ëllëg it seen xol dina sedd parce que lu dëggu rek laa fi gis. Besbudel Seimonech Besbudel Seimonech Besbudel Seimonech Bitte auf Familie di déewu bees ñagas dafay neex neex lu neex faxas di déewu bees What you have been taking, taking, taking